baax ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullah <clears throat> sant yàlla julli ci Moustapha ali salaatu salaam sant Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni suñu yaakaar tey ëllëg tey de dañu fee teew ci bisu mbégte bii nga xam ni sunu rakk suñu xarit Serigne Abdoul Khoudous moo ko am fii ci Almadi muy bisu mbégte ñu sant yàlla bu baax muy bis boo xam ni war nañu fee teew ndax li nu bokk Cheikh Modou Kara waaye war fee teew en tant que taalibe ak mbokkum taalibeem waaw ñu teew feek mbégte nag teew ak sunu xol nag waaw ndax sëriñ xam ne ku mu délégué jox ko kàddum euh, daanaka mën nañ ne euh, ku yebu déglu ko euh, góor gi fu mu nekk waaw Cheikh Ahmadou Kara du ma ni danoo jox kàddoom sax waaye dañuy liggéeyloo rek ñu doon ay jaam-jaamaata mu ñuy liggéeyloo liggéey bi ñuy liggéeyloo nag lu nu ci réussir tamit Euh, du suñu mm, mm, du suñu kàttan du suñuy pexe du suñu xam-xam lépp ndimbalam la rek ñu di ko sante bu baax a baax ñu gis taxawaay bi nga xamante ni am nga ko ci kër gi ak itam ci euh, njaboot gi euh, Cheikh Ahmadou Kara doon koo xamante ni waxtu wu nekk day soññi njaboot gi di leen gën a xiirtal rawatina taalibe yi ci ñuy teg seen tànk ci yoonu siraatal mustaqim jamono bi nga gis ay ndaw yu bëri dëgmal politique mais façon bi ñu ci dëgmalee est-ce jàpp nga ne méngoo ak njàngaleem Cheikh Ahmadou Kara Cheikh Ahmadou Kara moom daanaka amatum njàngale njàngaleem Serigne Touba mooy njàngaleem moom moom li Serigne Touba di jàngale loolu lay fàttali jamono bu nekk Serigne Touba it moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo moo ni innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq sunu borom daf maa yónni ngir uniquement pour ma mottali jikko yu rafet yi jikkoon da xam ne yàlla ni mu toll li tax mu yónni yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu lu ko ñor la mooy fexe ba ñu dellu si jikko yu rafet yi mottali ko. kon nag euh, jamono bu nekk nag kii politique ak kii politique lépp li leen yàlla sant lenn la mooy ñu làmboo ki teggin ci lépp. Euh, di tàmbal waaw wa di lisaana xawlal xayri tafus bihi wa tukfa kula dayri Sëñ Tuubaa nee na boo bëggee mucc ci wépp lor da ngay tàmmal saw làmmiñ wax lu baax ah, ndax wax euh, wolof yi dañoo wax ni sa làmmiñ mooy sag dee soo ko booyalee mu rey la jamono bu ne wala ngay euh, wax war ngay peese li ngay wax ndax bëri na ñoo xamante ni seenu làmmiñ moo leen dugal ci guuta gi ñu nekk ba mënatuñoo génn kon nag eh, Cheikh Amadou Kara loolu la ñuy eh, wax jamono bu nekk naan eh, del del del del del peser say wax waaw ah, na wekkat bu ko wax wala nee na wax naa ba taay rëcc ko waaye mosuma noppi ba rëcc lu ma doon noppee kon nga xam ni wax moom lu bë lu dangereux la waaw kon nag maanaam nañu nañu nañu woddaat suñuy kàddu ci mbooleem ci waxukaay di di wax lu rafet Euh, di def lu rafet di yéene lu rafet loolu mooy njàngaleem Cheikh Ahmadou Kara mooy njàngaleem Serigne Touba. en tant que njaboot en tant que taalibe yëngu-yëngu yi nga gisoon nañ ko ci Touba ak ci ban gis-gis nga ci am. nga yëngu-yëngu boobu moom fépp euh, laaj war ma nag waaye nag Touba da cee raw ndax day dëkk dëkk bu spécial ci ci Sénégal di dëkk bu spécial ci Afrique ak àdduna euh, dëkk boo xam ni boromam lam fa wax lépp ñaan ko fa boromam boromam may na ko ba noppi. kon képp koo xamante ni nii jug nga ngir indi fa leneen lu lu bokkut ak la war a am rek damay ragal nii doo ko fekkee mbaa du gën ci yow kon nag euh, lu mel nii am na ba noppi nag te lii Serigne Fallou da wax naan lu am am na li am lu démb moom lay jàll démb jaal na ba noppi waaye dañuy fexe ba ëllëg loolu bañ a amati damay yaakaar ne njuumte la rek ñi nga xam ne ñoo ñoo ko def njuumte njuumte la rek njuumte la xëy na amuñoon intention boobu ndax yaakaaruma nit di nga ko yaakaar yëpp ko waaw yaakaar ñun suñu lépp Serigne Touba la murid yëpp seen seen lépp Serigne Touba la waaye lu mel nii daal nañ fexe ba muy bañ di am ndax gënul waaw loolu daal maa ngi koy fàttali sama bopp di ko fàttali di ko fàttali eh, ñëpp Serigne Touba da ko dafa da cee ñaan ci bul Matlabul ni muy dëkkub xam-xam ñaan dëkk ba di dëkkub teggin di dëkkub jëfee xam-xam di dëkkub eh, jaamu yàlla di dëkkub sellal di dëkkub ñaan ñaan ñaan yu bëree bëri yoo xam ne eh, ñaan na ko ci tuubaa kon kon loolu euh, murit julli yëpp a ko war a xam waaye nag murit bu ne war na koo gën a bàyyi xel. Mhm. message bi ngay lancé pour euh, wàccaayu màggalu daaru ku ne xam na ne ñu ngi ko dëgmal moom. waaw màggalu daaru de xanaa woo ci ñëpp rek ndax màggal la goo xamante ni li ñu ki ñuy màggal war naa tax ñëpp wuy si waaye li tax ñuy màggal war naa tax ku ne euh, ku ne wuy si ki ñuy màggal nag mooy Serigne Touba. ndax daje bi mi dajeeg daje bi mu dajeeg Cheikh Ibra Faty borom Daaru Muxti ca Ndar ci tukki bu sori boobu nga xam ne tukki na ko moom sëñ mag bi lu yàgg su ci moom dara ba ni mu dikkaatee mbégte moomu nga xam ne am na ko ci gisee bu njëkk ak Cheikh Ibra Faty borom Daaru Muxti la ñuy màggal ci ndigalu Cheikh Mamadou Fadal euh, moom sëriñ Touba euh, kon euh, sëriñ Modou Ball njëkk koo màggal ba ci sëriñ Basiru mii fi nekk sunu borom yàlla ko fi yàgg yàlla yàggal te wéral ko muy bis boo xam ne itam bisum ngëneel la waaw bisub sant la itam kon képp koo xam ne bëgg nga say may dolli ko ba faw rek na nga ñëw ci màggal gi sant la ci Cheikh Ibra Faty borom borom Daaru Muxti sant la ko sant sant la ko ci Serigne tubaa waaw kon ñu ngi ciy woo adduna yëpp di ñaan ñu dugg ci bisimilah maa dem génn ci alhamdulilah rahmaan borom daaru itam ndénkaanam yooyu nga xam ne sunu borom euh, euh, dogal na sëriñ euh, tubaa dénkoon ko ko te te muy dénkaan yoo xam ne ndaw yi réew mi dafa mel dénkaan boobu jamono bii la woon xaar ndax Euh, wasiyatun tukassirul ataya li kulli man yajtanibul xataaya ne ko maa ngi lay dénk dénkaan boo xam ne képp ku bëgg say may dolli ko rek dana la fegal aw ñaawteef waaw waaw <clears throat> waaw day dolli may képp koo xam ni rek yaa ngi moytu aw ñaawteef yaa ngi bëggoolu bon jegele fenn waaw mu dénkoon ko xam-xam ak jëfe dama koy indi ci wolof mu gën a gaaw mu denkoon ko xam-xam ak jëfe ak i teggin aussi ka bil ilmi wa bil amali ma taadubi ala kamali na ni ko na nga sa setal sa ci lépp luy nuru taq-taq lépp loo xam ne mën na la gàllankoor mooy soxor ñaan lu mel ni siis lu mel ni nay lu mel ni lu mbooleem jikko yu bon nii rek nee na ko digaloon na ko ni ko na nga ko setal sa ba mu set wicc te loolu julli ñëpp la ko dénk adduna yëpp la ko la ko dénk Euh, dénkaan la boo xam ne daal buñ ko toppee euh, buñ ko fàttalee buñ ko defoon te mu màggal sax day daal di matale ndax dafa méngoog jamono ji waaw ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ci tawfeex yàggal Cheikh Mouhamadou Kara Noreyni ak ngi fi teew ci ndigalu sëriñ bi teew fi comme ni fi mbokk yëpp teewee rek ni fi mbokk yëpp teewee tey muy bésu mbégte te màggal moom bu ñu koy wax ci lépp loo xamante ne nii mbégte am na ci rek mën nañ ko ko woowee te am gan di ko màggal ci ni ko suñu borom digle ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale loolu rek ci lañ koy amal ci amin ba mu gën a rafetee wax dëgg yàlla ñëpp daje fi ñuy sant bu baax a baax tey delloo njukkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni bi nga xamante ni moo moo waral lii lépp ñuy sant bu wér a wér a wér di sant ñëpp ñu fi tew ci ci ci ci bàyyi seen yitte yëpp daal ak ak ak bés bi ni mu xatee waaye ñu bàyyi lépp te ñëw rek. macha allah ku xam Cheikh Ahmadou Kara Mbacké xam taxawaayam ci réew mi waaye itam taxawaayam ci yar njaboot yi nga gis jamono bi ay ndaw yoo xam ne surtout wàllu politique bi taxawaay biñ ci am eh, en tant que ndaw waaye itam koo xamante ni njaboot nga ci moom ban message nga ci mën a lancer. waaw message bi ñu ciy lancé rek mooy bi ci sëriñ bi di wax mooy lépp day delluwaat ci ku tedd ki rek ndax bu ñu fàttali fàttalikoo li ñu ko tedd ki jàngal ñun ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi rawatina ci jamono ji mën nañoo dem ci tajawudi sixaar mën nañoo dem ci kun kaati man bu ñu demee ci kun kaati man ku tedd ki mi ngi ñuy wax ni laa tuksiri shakwa fa kun mutajallidan xataa tazunna naas a amu maanaam bul bari looy jàmbat te nanga nekk koo xamante ne nii kuy muñ nga daal kuy góorgóorlu waaw ba ñëpp sax yaakaar ni yow da ngaa am te fekk mën ngaa bañ a am waaye muñ day waral loolu bu ñu demee ci tajawudi sixaar mu ngi ñuy wax ni ñun ndaw ñi buñ soxlawoo lu dul njub ak jàng ak mokkal mooy yaa ayyuha sibyaan laa tashtaxilu an il huda wa bil ulum ishtaxilu fashtaxilu bil xifzi wa tilaawa waaye wajtanibu majalis ash-shaqaawa léegi nag loolu lépp buñ ko moytoo te topp njàng mi nga xamante ni moom la ñu ko tedd ki jàngal rek lépp loo xamante ne ni day am ci réew mi moo xam ak lu mu mën a doon rek dañ koy jéem a mën a muñ ndax wax dëgg yàlla dara dara jekkiwul rek sotti lépp loo gis rek day tegu ci yoon waaye waaye nañ nañ nañ gën a dawal yërmande ji rek te xam ni waaw am nañ yaakaar bu baax baax daal. di ñaan ci ci ci ci lu yàggul dara ay yëngu-yëngu wër politique ñu gis ko ci Touba ak ci Mbacke ba sax ginnaaw gi si kër ak génn def benn message que ñu dem ci kilifa diini yi mu jox leen ndigal euh, ngir ñu waxtaan ak waa réew mi euh, yëngu-yëngu boobu en tant que njaboot ci kër gi noo ko dundee. waaw yëngu-yëngu boobu moom ñi dul ñi dul njaboot ci kër gi sax maanaam du leen neex maanaam képp koo xamante ni lislaam moo la yitteel rek loolu doo ko dégg mooy xew diggante Mbacke ak ba pare ba pare mu lay neex même boo dul jullit ñi nga xamante ne duñu ay jullit ci réew mi sax xam nañ ni foofu modèle la référence la foo xamante ne nii bu bu bu ñëpp jàqee wala wala wala bu ñëpp xawee am jafe-jafe seen xel du dem lu dul làqu foofu buñ ko bëggee yemaleeg fépp rek day xaw a day xaw a doy waar moo tax ñu ngi ñu ngi ñaan rek lu mel noonu lu ko waay mën a moytoo rek mooy gën ndax ka fa ne ndem yemut ak kenn dañuy fexe ba dëkk ba bañ a yem ak fenn rek loolu rek daal mooy mooy kii bi te sëriñ bi bàyyiwut ba loolu am muy doog a wax njëkk loolu di xew teeloon na leen ko bàyyiloo xel daal waaw waaye waaye comme ay gone moom yëngu-yëngu day yomb ci ñoom dañ leen di fàttali rek ñu gën a wormaal dëkk bi waaw wax dëgg yàlla loolu rek la ñu amoon ci ñu ciy wax. tolluwaayu politique bi ñu bëri ne sëriñ si sax dem nañ ba ragal a wax parce que ku ci wax ñu saaka la wala wala euh, dafa war a tax ñu noppi wala dañuy continuer wax rek. déedéet déedéet xam nga wax moom moo xam dëgg boo koy xas di wax da ci da nga ciy yemale ku lay tagg ak ku lay xas. waaw na doon dëgg rek dëgg suñu borom gi wax li nga war a wax wax li suñu borom digle fàttali li yonent bi jàngale loolu moom boo ci nekkee ak ak lu ñu la mën a wax rek moom baax na ndax li la war rek ngay def waaye booy bàyyi xel bu ma waxee li ñu wax ma lii daanaka da ngay mujj yam ñëpp rek waaw faaw nga nga nga nga jël say responsabilité maanaam jàngale li nga xamante ne ni moom la suñu borom jàngale yonent bi jàngale ko ku tedd ki ko fàttali waaw loolu rek ngay ñëw ngir fàttali ko waaye boo ci xalaat ku la wax leneen wala yooyu daanaka da ngay mujj yam ak ñëpp daal. waaw toujours ñu dégg ci leen sax ci ay leader di tiit ne réew mi mën na jur mën na yegg ci kaw daanaka des fois ñu wax ko parce que des fois xëccoo bi ci diggante opposition bi pouvoir bi gat sa gat li fi amoon du fi amaat moo yooyu ci gestion politique bi te ay ndaw ëpp ci. waaw waaw loolu tolluwaay la rek te ñu ci bari itam fi mu ne bari na ñoo xamante ne ñu ngi wax loolu te maanaam seen xol euh, daray soxor wala kiñaan du ci nekk ñu ci bari dañuy topp maanaam baat bi rek. comme ñun sénégalais suñu borom daa dogal maanaam dara mën naa xew ñëpp di ko wax te teewul duñ ko dundee daal waaw maanaam dañuy tàmm baat bi di ko wax noonu waaye waaye buñ demoon ba des lu maanaam jàmmaarloo wala dara ku ne day yërëm sa sa sa morom waaw ndax réew mi xam nañ ni daanaka koo gëstu rek daanaka di nga bokk ak moom dara moo tax buñ buñ topp terme yi wala euh, euh, euh, yi yi xale yi xewal ak yooyu comme ñi ci mel ni man mën nañ koy topp di wax noonu rek waaye du du lu ñuy jëfe suñu xol waaw kay du nekk lu nekk seen xol ndax koo ci waxtaanal dangay xam ni kii kat daa ñàkkoon a xam wala yu mel noonu da gis ni maanaam bëggul dara fitna daal moo tax daal dañu leen di bàyyiloo xel bu baax a baax rek li nga xamante ni mooy njàngaleem ku tedd ki loolu lañ leen di xel bu baax a baax ci ci ci jëf lu baax yéene lu baax te di ko wax loolu daal la fàttali suñu bopp di ko fàttali ñëpp. teewaay bi tey suñu mag suñu xarit suñu mbokku taalibe Serigne Abdou Khoudous moom moo xewle euh, amoon tuut tànk moo waraloon suñu teewaay fii ci bis bi. Eh, ngay doom ci maam Thierno doon koo xamante ni yarkat la waaye tam koo xam ne la ku ndaw ñi bàyyi xel la du ñu toog ak yow te laajuñ la njàngale maam Thierno selon xew-xew yi nga xam ne lu yàggul dara xew na ci tuuba ak eh, Mbacké ñu bëree bëri di ko lu ban yëg-yëg nga ci am en tant que njaboot. yoo xam nga loolu nag moom daanaka ñaare eh, doomu aadama yi kenn ku ci nekk sa jëfi bopp te ñun donte bu fekkee ni dëkk bi ñor nañu waaye kenn ku ci nekk am na ci ñoo xam ne politique bi dañ ciy foncé am ci ñoo xam ne moom daanaka dañuy xool li ñuy li leen seen i may rek ñu mën caa yam te wax dëgg fa yàlla kenn xamul lan mooy lan moo lan moo lan moo ca nekk kon maanaam day am noo xamante ne ni dañ ko fay doxalee rek boobu boobu xam naa bàyyi su ko defee ñu bokk ku ci nekk sa jëfi bopp rek na la doy kenn ku ci nekk sa jëfi bopp rek na la doy loolu it doon loo xamante ne ni bëgguñ ko ci kenn bëgguñ ko fenn bëgguñu fenn violence am fenn kon wax dëgg fa yàlla dañuy ñaaxaat ndaw ñi rek ñu gën a amuk dal ci loolu. Euh, màggalug daaru moom itam ñu ngi ko dëgmal euh, en tant que njaboot ci kër gi ban message nga ci mën a lancer wala bëgg itam appel. waaw màggalug daaru ni ko suñu kilifa yi di soññee di ci woo mbokku taalibe yëpp ñu ñëw noonu képp lañ ko defee mënuñu koo weesu ngir ni ñoom dañoo bokk ci ñun ñun ñu bokk ci ñoom. kon lépp lu ñu mën a xewle ak lépp lu mën a doon ci wooteeb sëriñ bi rek kenn ku ci nekk da ngay xar sa tànk tubéy ngir dox li nga dox li nga xamante ne moom la sëriñ bi bëgg moo waral bu màggal gi jotee da ngay gis mbokk taalibe yëpp dañuy bàyyi seen i yitte concentré wu ci am seen i objectif di ko def di ci woo ñëpp nag ngir rek ñu wàcc wàccaayu màggal daaru bi. Hmm. dafa ñu fàttali ci màggal gi lan mooy sabab li ak lan la ñuy fàttaliku ci bis boobu. waaw bi borom daaru moxti jugee ci ba bi jugee ci ci ci géej gi gisee gim gisante woon ak borom daaru moxti moo waral bés bi tey hmm. billahi min ash-shaytaani rajiim إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفي يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor tax